aca moo ngi noonu moo kay tan na ne yéen a may tàmbali fort action am noppi du xool kan ak kan ñooy bëre <laughs> si diggante Carabas Carabas laa dégg gum waaw moo ngi noonu Carabas ak caati caati meewaan ñaari mbër yooyu ngi noonu ñoom ñaar ñooy bëre mu nekk deuxième combat de la soirée si diggante Thiatou Mbéwane ak kii di Canabasse Canabasse rappeur la xaw ma nag en tout rek mu ngi koy suqi mu ngi koy suqi déedéet mu ngi koy suqi waaye ba léegi talu bu baax moo ngi dóor si bopp bi arbitre dóor boo amul wala déedéet mu ngi koy suqi fayu na moom tamit arbitre yi waa sif la wala moom tamit mu ngi koy suqi mu fayu eh ñaari mbir yee ngay raak ñaari mbir yee ngay raak baa du bët baa doo dóoru bët la koy suqi Canabasse dafa mel ni mu ngi koy suqi wala Canabasse la ñuy suqi déedéet <laughs> da koy plaqué déedéet demul baaxul togg ba ñorul supporter yi jug nañ waaye togg ba ñorul ba léegi ah gars na seen bopp toogaat. ci diggante kii di Canabasse ak Thiatou Mbéwane yaakaar caatu Méouane waaw moom la Canabasse caatu Méouane la moo koy suq de déet déet ay eh, ay eh, déet waay waay kii li def nii waaw yaa bi mu mën waay waay xale ngi bëre waay moo koy suq waat un eh un rek nga yem deux eh dañoo tardé parce que guy gi ñooy yuuxu noonu xaar lañ seen mu ñëw <laughs> jarul yaa xam ne fu mu toll nii ñoo ngi si deuxième combat de la soirée si diggante Thiatou Mbéwane guy gi da koy bëtt wala déedéet bopp bekkatee fu mu teg bopp moo baaxagul dafa mel ni am na ku sonn mel ni am na ku de dafa mel ni am na ku sonn de wala moo xawal moo ko wax cey lool mbokk internet yi Wassare c'est répété dimanche 13 octobre wala novembre Wassare Lamb jërëjëf xarit temps yi c'est ma yàq ay eh, moo ngi koy pra déedéet da koy mboot baaxul ba léegi xarit nee na ma déedéet Wassare Lamb wal way wax dégg Wassare Lamb Wassare c'est répété woon tey ñëw si Wassare Lamb ci Wassare mécanicien bi bi nee day indi wasaare mécanicien waaw moom loolu la soxla wasaare làmb am na wasaare société am na wasaare célébrité am na wasaare news ak wasaare fatwa dëggee <laughs> fatwa mooy religion ñoo sukkante li ñuy def religion waxu ko sukkante bii ñaari mbëri diggante Canabasse déet eh déedéet génn nañ arbitre wala action am na daan na ko eh, eh, eh. caatu meewaan ma ne caatu laa la wax sànq waaw man mii lu ma daal <laughs> caatu meewaan ak Canabasse caatu Canabasse moo doon jàkkaarloo moom moo yaakaar dafa daante daanul dañoo génnoon saako yi supporter daal di yuuxu supporter caatu mbewaani daal di mer ab bit woowaat leen ci digg géew gi ñu nar a bëriwaat Canabasse da koo daanoon ba pare dóor ko <laughs> caatu mbewaani topp ko suq ko léegi nag suqante leen suqante bi fii la gën a neexee kenn di bi baax sànq noo àtte bi baax tey kenn di li ngeen doon def hors du géew defaat lan acca deuxième combat de la soirée si diggante Thiatou Méouane ak Canabasse Canabasse bi du Canabasse rappeur nag Canabasse bii bokkul ak kan Canabasse rappeur Canabasse ba rappeur bu doon wax naan du ma sànni xeer lakk kër jaamu sama ah lan lay waxoon de loolu loolu xam nga may déglu rab eh, bi jeex ma àggale ko. ñaari mbir si diggante Canabasse ak Thiatou Méouane waat bi sifflé dafa mel ni cinq minutes jeex na waa ñaari noppal waat daare moom mooy e daan na ko bi paa e jël revanche am da koy wër nomb déedéet moom moo daan déedéet e ñaari mbër yi ngay bëre déedéet Canabasse Thiatou Mbewaan nañu kalkal déedéet action baa ngay continuer ba léegi moo ngay bëgg forcer de moo ngay bëgg forcer action bi ni muy accéléré noonu laay accéléré donc sa saako ñaari mbëri trois appuis déedéet da koy dóor moo ngi ñaar numéro jàppante waat nañ si diggante Caatu Mbewaan ak kii di Karabaas ñaari mbër si wuti sàkku ya yéen ngi bëre seen supporters yi mi sax kontaan naa teel fàttali Karabaas bii bokk Karabaas bii rab <laughs> Karabaas bii rab waaw bokkul ak moom wa doon Canabasse boobu moo doon wax naan du ma sànni xeet du ma sànni du ma taal pneu te du ma sànni xeet lan nga ko waxatee sax maa xalaat du ma déglu rab. eh daan na ko waaw waaw la deux fois moo la mën waaye ku la daan deux fois mën Canabasse mi man damaa delloo si ba tey rek nii wala gerte may may ma jël ko waay. jëlal waa Cambérène jëlal waa Cambérène. ñu dem kaa leen ñu dem.